jaamu yàlla. jaamu yàlla. liggéeyale ko sëñ kàddu yooyee soqi ko ci cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké tënk na jotaay bi mu séq ak daara Hizbut Tarqiyyah ci gaaw. ñaari fan ci weeru safar mbooloo bi nag yàgg na siyaare xalif général des mourides waaye jotaay bu ni lu taarix di jàpp la ndax lu bokkul ak taxawaayu siyaar bi nga xam ne mate na ko sëkk sëriñ Youssouf Diop jiite mbooloo mi def na ko buntu ngir jébbale sëriñ bi caabi kàggu bu mag bi nga xam ne sëriñ bee ko tuddee këru xasaay di muy naal boo xamee nag sëriñ Atou Diagne nekkoon fi jëwriñu daaray bu tarxiya moo ko taaw woon ci ñetti fan weeru avril atum 2020 ba tey jii Serigne Youssou Diop jébbale caabi yi bu doonoon luñ tënkoon ci juróom benn fukki million ngir xayma te jii nag àgg na ci ñetti milliards ci suñuy koppar ngir ite ju kawe ak fonkeel fonkeel googu sax waral na ba caabi yi nga xam ne ñooy tijji barab bile ñu tëggee ko or ak peppi jama listixaaree ko itam dayo bi nga xam ne xasaa idi yelloon nañ ko donte ne amul lu mat a jote seenu àq loole nag sëriñ Muntaxa Mbàkke xamle ne cheikhul xadim moo fa tollu ci jotaay bi itam sëriñ Yusuf Diop ànd ak mboole mi jëwriñ yi nga xam ne ñooy teewal daara Hizbut Tarqiyyah ci tund yu wuute ci biir réew mi ak bitim réew jébbal nañu àddiya mbooloo mi mu yemook ñeenti téeméeri million suñuy koppar ak lu topp mu doonoon nag ziar bi ak jébbale caabi bi doonoon jotaay murit yëpp ci biir naal wi nga xam ne moom la serigne bi naal di complexe Cheikh Ahmadul Xadim